message est clair, le tabagisme tue. C'est pourquoi l'État du Sénégal passe à la vitesse supérieure après l'adoption de la loi anti-tabac. Dorénavant, toutes les boîtes à cigarettes vont être confectionnées de cette manière. Ces images montrent les dangers néfastes du tabac. Vous savez, le fumeur passif est plus exposé. D'ici la fin du mois, toutes les boîtes seront disponibles. Une large sensibilisation est nécessaire pour échapper aux sanctions. L'analphabète qui a cette boîte et qui fume. Vous regardez l'image. Et si l'image ne vous dit rien, c'est couplé aussi par des spots. On l'a dit tout à l'heure, sur une chaîne où c'est en français, en Wolof. Ce n'est pas une lutte qu'on fait à la légère. Les langues justement euh, nationales vont être utilisées. Par rapport à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, il y a une sanction de 50 000 à 100 000 francs. Bon, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une sanction qui est euh, infligée par le tribunal. Maintenant, euh, l'autre sanction, c'est une amende forfaitaire de 5 000 francs qui, qui peut être perçue par l'agent verbalisateur. Chaque année, 7 millions de personnes meurent à cause du tabac. La prévalence chez les jeunes augmente de jour en jour. En guise d'illustration, 20,1% des garçons et 10,1% des filles fument selon git Sénégal 2013. E message bi leer cigarette day lorate lolou taxna gouvernement Sénégal tegaat benen Diego ginnaaw ba mu adopté loi anti tabac. légui nak cigarette bo jënd dina am photo yi nga xamné mom lañ ci def muy photo nit bu sonn bu feebar te lan moko ko indil li tux cigarette tax waye itam ma bëggoon nit ñi xamné tux cigarette rek yow sa bop du lolou rek moy indi problème parce que so soo euh saxaar bi génn mën na dem be dugg ci yaramu kenen fi lek weer bi dee nii dañoo bëgg li nek li nga xamné moy nek ci boutique yi léegi kuy jënd lu mel lii ngay jënd. ab sensibilisation bu ya dañ ko war a mën a def ngir éviter daan yi nga xam ne teg nañ ko ci tuxkat yi l'analphabète qui a cette boîte et qui fume. ki nga xamante jangul te gis boitu cigarette bi wala muy tox bu xolé natal gi ci boîte bi xamné ay danger mi ngi ci mën naa xool publicité yi ngi def ci langue bu nek. par rapport à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. ñu tox ci lieu public dañ leen di tegg ay daan fukki junni dem ba ñaar fukki junni loolu nak tribunal moo koy décidé. waaye nag boo ñëwee ci bërëb boo xamante daal dañ fa ay tux te borom moom nekk fa di nga fay nag junni borom bërëb ba ci saasi. par at bu nekk juróom-ñaari millions doomu aadama dinañ faatu ci tuxum cigarette ca ndaw ya nag tooba day yokk saa su ne ndax bu ñu ñëwee ci góor ñi téeméer boo jël ñaar fukk bu toftal benn dinañ tux cigarette ci jigéen ya nak eh, témèr bo jël fukk bu toftal ben dinañ tux buñu ci wa gis Sénégal 2013